ba tey nga am li nga bëgg si xaj bi ba loo ko wax mu def ko ñu dem découvrir loolu fii ci biir site Aliou Sow am waa dynastie dressage léegi internetu Ovision tey ñu ngi nii taxaw ak Laurent mi nekk Dynasty dressage tey ñu ñëw pour waxtaanee lépp lu jëm ci xaj yi ak euh, dressage bi ak yenn mel Laurent ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan te di contenté am contentement bu rëy ci nga ñëw seet suñu fii nii. Hmm. suñu bërëb. ñoo ko ñoo ko bokk. mais wàllum dressage bu xaj leen nan ngeen ci duggee ak ak nu mu demee noonu lan ban amour ngeen ci am ak nan la leen dikkee daal. waaw man moom nu mu dikkee parce que dama avant tout tamit amour moo ci dama juddu fekk suis suñu kër nonu ma jël tamit di ci ànd ak sama grand frère di leen yobu geej hmm. xam di nettoyer sen niche de fur à mesure non, non, ba un bon bon def ay yu mais depuis ci formation la opté quoi ci ci sama liggéey ah, ok Sénégal mais am nañu fii ñuy def ay formation dressage. effectivement am na def ay formation fi Sénégal. école la wala lan la. bon ça dépend tay mën nga gis ben ancien gendarme bo xamné nga dem kutuwaay ko mu jàngal xam-xam bi.

xamagul dara ci bi. Uh-huh. lay indil ñu bari fii dañoo vierge. Uh-huh. Ah, vierge amuñu discipline quoi. mais juste am na race am na ay berger allemand am pitbull. Uh-huh. boo xam ne lañ koy làq. am jagrosel am na race ne tamit indiwuñu leen ndax temps bi xaw mm. mais mu mel que genre xaj mel gis nga Uh-huh. mais est-ce que il Ben bu ci nek war nga am sa caractère qui des fois tamit ñu ñew fekk xaj yo mal mara parce que n'y wax a pas un mauvais chien mais seul l'homme est mauvais parce que c'est l'homme qui apprend aux chien à devenir agressif c'est l'homme qui apprend aux chien à être docile ou à être gentil tu vois ce que je veux dire c'est ça quoi mais en grosso modo il n'y a pas de mauvais chien xaj bi ñu jox mhm. la ko mu doon liir ñëw sa kër da lay sonal comprendre mhm. nga jooy xam nga noonu de petit à petit xaj bi dem ba màgg xam nga et léegi nga dem jox yóbbu ko ci dresseur pour tàggatal la ko non non da nga koy bàyyi sa kër y' a aucun base aucun règle et boobaa xaj bi bu soxoree ce sera trop tard. waaw mu mel ni aussi yooyu bëri na cas yu mel noonu ci biir dëkk bi yoo xam ni da ngay dégg xaj sàngam Euh, agressé na fi nit wala agressé fi agressé na fi bon yi wala xale yi wala taalibe yi dégg nañ ko fi ba taay. waaw mu mel ni genre race yooyu mooy bële may seen muy pitbull bi. donc pitbull loolu naka ngeen koy dressé yaa ngi ne pitbull bi léegi olof ngeen koy wax. waaw euh, tey pitbull gars yi dañ ko banaliser de trop alors pit moo gën a adorable ci xaj peut-être kanam ngay xaw a ñàng nii rek mais le pit c'est un chien boo xam ne il est adorable. tout dépend du même bâtard bi ngay gis ci mbedd bi bâtard bi tey boo joxul ordre de base yi mu soxla bu demee ci kanam da lay sonal waaw mais si ko le tàggat ko le chien va être gentil le chien va se référer de ce que tu lui dis waaw c'est-à-dire des ordres waaw c'est ça quoi mu mel ni bataar yaa ngi wax bataar sànq bële bataar mooy pour ñu ko xamul bataar mooy xaju mbedd yi mooy xaju mbedd yi mooy lawbe yi xaju lawbe <laughs> lu tax ngeen leen tuddee lawbe bon tubaab bi noonu la koy bataar bataar sax ça n'existe pas uh-huh. mais en grosso modo lu tax ñu naan bataar fii parce que mix la walla kii wala tey mën naa jël tey benn rot mixé ko berger allemand bataar la may indil ah. parce que c'est un mix boo xam ne amul tur quoi waaw mais tey xaju mbedd yi c'est des chiens lawbe noonu lañ leen di woowee tey boo duggoon Google wala internet boo defee bataar doo fa gis xaj mhm. mais boo bindee lawbe di nga gis des différents chiens lawbe ah ouais ouais c'est ça mais léegi par exemple lu ñu demee ni rot bi tey boo ko doon éduquer tey yan base nga koy jàngal nga xam ne fa ngay commencer tey pour moom mu mën la déggal mën a respecter li consignes yi nga koy jox commencement base bi fan la bon d'abord bu ne woon sama xaj la man je saurais yow ya mom sa rot nga wo man dresseur bi pour ma ñëw éduquer sa xaj d'abord damay xol nak yow tu es discipliné d'abord. avant que moy discipliner xaj bi. ok yow la njëkk jangal des ordres de base yo xamné xaj bi da ko wara respecter ensuite nak ma commencé nak des ordres de base sur le chien cest à dire de ne pas pisser ici hein, de ne pas rentrer au salon de faire ceci de faire cela de faire lii après nak ñu commencé nak dogo jël xaj bi diko tagat tagat bi ça dépend yow ci ni nga bëggee ma tagat xaj bi.

Mais je vous pose là, c'est le temps, voilà, tu n'as plus envie d'avoir ce chien bu que pas nga pour le pour meuble mais meuble boobu xanaa sax boo un di de ko Voilà, mhm. wala nga nettoyer poussière c'est ça le chien même pour ko dressé il a besoin d'un espace il a besoin d'un compagnon boo xam communiquer ak il a besoin aussi que tu le détends. Donc, ànd ak moom détendre nek ci jamm ñëwaat ci kër gi à l'aise mais tay nga jël sa xëj rek aj ko ci kaw terrasse bi des fois sax du lekk xam nga loolu day xaw a métti tuuti moo tax nag man appel bu may def mooy boo yore sa xaj bëgg nga xaj tey gis nga benn Laurent bu yor xajam mu rafet nga ne da nga bëgg a on te donne le chien avant da da da d'acheter le chien damal posé wu des questions d'abord nga renseigner wu ci xaj ba pare nga doog a jënd xaj ba pare nga ut sa dresseur boo xam ne wóolu nga ko mu continuer la liggéey bi tu vois un excellent chien. Mm-hmm. Ah. mais tey euh, race yi fi pour yow boo ci doon tànn bi nga xam ne moo pour compagnie wala boo boo xam ne moo pour gardiennage ak ban la ji doon ak bu nekk nga wax ma qualité am ak défaut. tey le rottweiler tey exemple le rot le rot c'est un chien boo xam c'est un chien de compagnie c'est un chien boo xam c'est un chien euh, de comme euh, de garde xam nga yow tamit c'est un chien qui il est protecteur envers son maître Tu comprends Tu nga euh, un ci Cane Costaud le can Costaud un il a du posture un il a du caractère sans lui, il sax dafa caractère mhm. maintenant le can, il faut être un chien de garde le can, il faut être un chien de à domicile mon na xaju compagnie le Pitbull la même chose euh, le c'est la même chose. mais nañ pas ci pitbull pitbull mënul nekk chien de compagnie. non si xamoon tax mën na chien de compagnie tout dépend du maître Je ne lay njëkk wax man je bannis aucun chien man banniwuma benn xaj tout dépend du comportement tey mën naa leen di benn pitbull boo xam ne Sénégal on a l'habitude à faire ça da nga jël pit bi rek bouffe la buuf la buuf la mais finalement le pit bouffe le bouffe-le, continuer ah. mais tey tu prends le pit nous ànd maag yow ma jox la ko nga dem promener nga dem pit bi vous pit ravage ravage c'est pas le pitbull en telle sorte c'est l'homme mais c'est pas le chien. D'accord. Ouais. Il y a ni berger allemand. Le berger euh, allemand peut être aussi un chien de garde, peut être un chien de compagnie. Euh, le bûcheron aussi peut être un chien de compagnie, mais pas un chien de garde. Mhm. Mais des fois, ils ont le caractère, c'est un caractère de garde. ñu ragaluñu dara. d'accord tout dépend aussi du maître tout dépend aussi ban dresseur ngay jël mu liggéeyal la liggéey boobu noonu. d'accord mais est-ce que yéen actuellement am ngeen ñu leen woo pour pour ñu leen dresser seen ay xaj euh, comment ça se passe seen structure bi dynastie euh, dressage. bon dynastie dressage dafa nekk euh, benn structure boo xam ne du man kase mais dafa nekk ak sumay grand frère ñoo xam ne tamit bon peut-être jiitu naa leen ci liggéey bi. Mhm. mais am nañ xam-xam tamit euh, euh, euh d'un leadership tu vois ce que je veux dire. Mhm. léegi entreprise la boo xam ne du man casser corps gi. Après, ah, man vous êtes structuré. dañoo structuré avant tey boo ñëwoon tey ma pour dressage du man maay dem signer le contrat boobu damay woo qui est chargé mettre la en rapport ak moom tal autom nous fait que c'est la wala nga nous def contrat bi ñu nous mënuñ woo téléphone nañu tel jour am ngeen dressage tel. on fait ça sur contrat contrat bi soit yow. dañ koy bind ñu dem police nga signé ma signé bu ma defee loo xam ne neexu la je m'amène à la police nga def loo xam ne neexu ma je t'amène à la police. mais loolu est-ce que war na cee mën a am ci diggante kuy dressé xaj ak ak borom loolu loolu war na cee mën a waaw parce que tey Sénégal dañoo jàpp ne lii dafa ñàkk fayda. Mhm. tey da ngay gis benn Laurent bu yeew jël xajam yi di dem dressé ñu ne amul ité. yaa ngi dégg liggéeyul quoi liggéeyul fekk ne maa liggéey maa ngi Parce que le fait d'apprendre aux chiens de s'asseoir, de se coucher, de rester là-bas et de faire ceci, de faire cela, c'est ce que je veux léegi nag moo tax nag ñun suñu contrat yi tax ñu def da ngay gis tey samba ñu commencé ci xaj bi liggéey ba ci kanam. samba bi ne léegi dañuy arrêter liggéey parce que dafa war a dem voyager. Mm-hmm. te wu naa bind nañ ko contrat bu leer nañ. mais d' habitude contrat c'est combien de durée wala aussi ça dépend du race xaj ndax. Euh, Khadji, normalement, le contrat que vous proposez, ça dépend de la race Khadji. Ça, c'est, effectivement, ça dépend de la race. Et aussi, ça dépend aussi de ce que vous voulez. Quel programme que vous voulez Khadji Je peux prendre ce programme-là, 6 mois. Je peux prendre ce programme-là, 1 an. Je peux prendre le programme 2 ans. Mais 6 ans, continuer les travaux Tout dépend de ce programme que vous voulez que Khadji. Mais le dressage de Khadji, vous pouvez 1 an Ah ouais, vous pouvez faire 1 an. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire euh, nekk ak xaj comment dirais-je euh, di ñëw di prendre soin xaj bi di ko génne muy promenade. Mhm. di ko rappeler ay exercices am ba yow maître bi yow yow tout ce que tu dis au chien xaj bi defal la ko. Mhm. léegi foofu la foofu la ñu xaw a kiiyee euh, nu mu tëddee foofu la ñu différencier tuuti. parce que du xaalis bi d' avant tout. parce que tay man buma ñewon tay tey nga jox ma sa xaj buma ñewé gis xaj bi moom tik dang koy dem faji ba paré ba ma ka continuer. mom lan.

kii euh, berger allemand là. bon rod bi présenté naa leen ko. pitbull bi moo nek ni. kaani corso bi moo nekk nii kaan bi moo nek ni. jagrosel bi moo nek na ah, le. waaw jagrosel moy bëgg na ndaw bi quoi mooy bu gàtt bi waaw. d'accord mel yeen ñi ñëp kon ci ci loolu ngeen di yëngu da ngeen am ay amuru xaj.

tey ñetti ñi ñoo bokk fi ñu dëkk ñetti ñii ñoo bokk fi ñu dëkk ñii di nga leen jox croquette di nga leen jox pat comprendre di nga leen jox ay pot. Mhm. ñii mun nga leen jox yàpp parce que ñii c'est des pitbull ak kan la ñoom dañoo dañoo soxla loo xam ne. c'est résistant waaw dafa day dëgër. tey mun nga leen jox ñoom tamit euh, nu mu tëddee ay dem peese sa yàpp ñëw ci ko boole kaak macaroni boole kaak euh, ceeb bi. mais ñu bëri daam lu ñuy dañuy li ñuy fàtte benn alimentation bo xam gis nga ceebu keccax. keccax waaw keccax waaw dafa baax ci xaj parce que calcium la dafa dafa bari vitamine et keccax bi comme ñun ni ñuy lekkee ceebu keccax noonu nga koy togalé mais ak ñànkatang nga koy. ñànkatang ak keccax keccax nga xaj bi lolu lolu vitamine la on a tendance à faire ce que les blancs font. Mm-hmm, on a tendance à faire ce que les blancs font. alors que Suisse est-ce que climat est bon il faut adapter le chien à ce climat d'abord adapter le ce que tu veux que tu aies, de petit à petit. Pour c'est ça président ngi toog ak euh, Fallou ñu bàyyi ko mu présenté wu moom mooy président wu euh, dynastie dressage Fallou ñu lay nuyu. ñu ngi lay fay. waaw euh, Fallou président dynastie dressage. Mhm. moom ñu ngi si xaj yi quoi. ñu mhm. ngi si xaj ele xam nga. dynastie dressage benn structure la. Mhm. boo xamante ni ñëpp ñoo bokk luñu suñu bëgg-bëgg maanaam mooy xaj. waaw danoo jég danoo danoo créé kii bi ne pourquoi pas structure bi ne pourquoi pas nekk si xaj yi dimbali xaj yi. des fois bu ñuy dox ni sa gis koo xamante ni mu tee xajam baaxul ah wala ñu toppatoo xajam baaxul ñu woo ko jox ko ay conseil hmm. euh, yéen lu yow lu la dugal lu la jox ay tey amuru xaj non man man ba mu nekkee xale bu dee sama kër papa dañuy yar ay xaj quoi. Ah. non dama am amour bi quoi passion. ok moo dugal ci hmm. naa def lu ne naa def prix bu ne jënd ko. ah ouais waaw te du ma wax jaay rek <laughs> business quoi. si comprendre naa. <laughs> mais léegi tey structure bi nu mu demee nan est ce que am na ñu leen di woo am na ñoo leen di liggéeyal commencé ngeen am ñoo leen di liggéeyal ak yooyu des fois des nga gis ñoo xamante mhm. ni dañuy bi nga leen di dépassé mhm. ñoom xaj bi dina leen dinañ ko mun canaliser mais ay nit mhm. da doole léegi dañuy woo ñu woo tey ñu woo suñu yi après ñoom ñu doon récupérer xaj bi téye ko benn une semaine deux semaines wàccee xaj bi éduqué ko wàccee ko des fois borom xaj bi dañ koy jëli mu ñëw fekkee ay séance de dressage nga xamante moom xaj bi ma xaj moom nga war a wane yow yaay man maay maître bi. yaay chef man nga war a dégg mais xaj moom boo ko bàyyee ci lu ko neex rek bu la nappee rek jeex na moom moo lay diriger au ko diriger. mais pour bañ loolu il faut tey ñu contacter ñu mel ni yéen. waaw nga contacter ñu mais avant pare kii bi dafa yàqu léegi li gis booy bu jógee moom dresseur la comme man nii man bu ma dresse. waaw ah. man am naa amul xaj. xam naa si dara quoi mais am dafa am équipe boo xam ñoom loolu mooy seen liggéey. très mel ni ñoom Laurent. ku mel ni Laurent am na beneen booy bu ñuy wax ci Alseyni. ñooñu ñoom loolu mooy seen passion mën nañ tee xaj dressé ko ba nga xamante ni xaj bi day day wax comme nit. <laughs> dañuy wax xaj comme nit boog. est-ce que est léegi yéen ku leen bëgg a jot yow sa numéro lan la. a comme man sama numéro 78 la 015 73 70 wala 77 678 96 96. d'accord waa cité bi fii tey amuñu leen soxla ci affaire pour affaire gaz. waaw cité bi cité bi bëgg a. ñu gisee suñu xaj yi comme bu leen génnee nii. Hmm. sans takkal leen lees. Hmm. xaj yi duñu attaqué kenn. Hmm. loo leen wax moom la ñuy def après ñoom dañuy dañuy am dañuy am amuuru sax nga jaay leen xaj wala nga may leen xaj. wala nga comme ñu am problème seen xaj yi ñu dox xaj bi di leen tiir di tiire lees bi. tiire waaw xam nga nga woo leen ne leen non lees bi ñu ngi koy tiir xam nga bu demee kii nga kii redressé ko xam nga

c'est bon c'est bon Les ñu xool beneen. ñu xool Qui c'est la marche au pied là def. Mhm. Euh, demi-tour assis la marche au pied assis. bii Rottweiler la Rottweiler les base là de même. ok ok allons-y. au pied au pied oui c'est bien ok assis. bravo mon chien bravo bravo au Ainsi. Ah, oui, bon Au pied. C'est bien, au pied. Au pied. waaw c'est base parce que nous avons lu ñuy def que nous ñëw la dama lay obstacle mais petit à petit l'oiseau fait son nid. Mhm. tey du ma la wan lu xaj bi mënul dama lay wan li xaj bi mën mais c'est-à-dire la marche au pied c'est très important chez chez le chien parce que xaj bi lay diri tey neexu la mhm. nga solu war a doxantoog xaj bi xaj bi di diri Lolo, baaxul ci xaj bi mhm. loolu day waree ne xaj bi non dégg na sax mais il est autoritaire léegi lépp lu ñëw sa kanam rek xaj bi da koy ravager c'est pas normal la marche au pied chaque jour dresseur bi dafa war jël temps ci la marche au pied jël temps ci assis jël temps ci couché c'est très important. d'accord légui dama lay wonat benen xaj lu mën mom tamit. inshallah ok. day jóg ci man lé ah, légui bi mën na def ban façon de démonstration lañu def. kan bi tamit bu la nexé tay ñu def garde objet. Mhm. tay bu la nexé ñu def garde objet. garde objet moy ma tek sama li mu garder ko. waaw kenn warul laal affaire bi. waaw tey bu la nexé tamit mu defal la démonstration bi rek discipline assis debout couché. Dans ah, nañ garde nañ def garde bi. ñu garde objet. waaw ok. tenue de place assis nga teg affaire bi fii mu garde ko. oui tagal mu garde ko. eh. allez, casse-toi lii mooy li may wane boo tegee affaire ken kenn du ko laal. kenn warul lal affaire bi. d'accord. t'as d'accord lii garde objet léegi personne ne doit toucher à à cette truc là. Mm-hmm. t'as vu. Uh-huh. maa la défensive. c'est la défensive oui. tay exemple damay mimé xool na faté na wol faté waaw. t'as vu. Uh-huh. et non c'est ça quoi. maintenant ñu gën ci lolu mm-hmm. ñu gën ci lolu maintenant. Discipline. Discipline. Okay. Hey. I, see. Okay, I'll stop. comme nous l'avons vu, kan la garde objet base une discipline avant tout Nous hier des tamit nous mais on n'a pas <laughs> amené beaucoup de matériel c'est-à-dire des costumes, protège affaire Nous avons bu ko indi la là un jour viendra quand dinañ qui dem ci mais dressé nous xaj uh-huh. de porte à porte ngeen gis le mhm. mais gauche pied gauche assis d'abord assis merci beaucoup. la marche au pied. au pied. le chien doit pas te dépasser. Bon, tournez nga assis. assis. face. merci beaucoup tu caresses le chien. oui vous comprenez. Mhm. c'est pas méchant. mais juste chaque ordre ak chaque exé exécution dafa la récompense. d'accord Ah c'est ça la marche au pied. Il galoper quoi xaj dafa neex. demi-tour assis assis. Ah yow qui il sera un bon dresseur Qui m'a ko téye un mois mu toj merci ok D'ailleurs jaajëf léegi luy sa dernier mot suñu émission jeex na. waaw sama dernier mot moy di len remercier waaw yéen surtout yéen mom awma sen fay maa remercier bu baax mais encore une fois il n'y a pas de mauvais chien. Mhm. encore une fois il n'y a pas de mauvais chien seul l'homme est mauvais. si tu apprends à ton chien de devenir agressif c'est ça qui va continuer. Mhm. après mon coûter le cher. Mhm. des fois mon tey sama loxo bi exemple là. ah lii ben, xaj moo la ko ko soxor soxor bo xamné gaay gars yi dañoo woo ku né kenn jëliw ko man ma jël sama risque dem j'ai pris le chien ak sama technique ba indi ko kër ga mais à la suite le chien s'est révolté contre moi. Hmm. ba japp sama loxo bi. mais par la suite xaj boobu tay def na un autre jour viendra nañ dem kër googu noonu. Hmm. bu ma la né xaj bi momo def ni do leen ko gëm. té pourtant c'est un bon chien c'est un adorable chien. Hmm. mais tout dépend du maître. limay wax gaay dal moy mooy liggéey bi mu ngi fi mën nañ ko bëgg nañ ko te structure bi incha allah mu ngi commencer mu ngi commencé. nank nank avancer nank nank képp ku bëgg suñu contact jox nañ leen ko ngeen contacté ñu ñu liggéey leen seen xaj ni ngeen ko bëggee te encore une fois je vous remercie. ok merci beaucoup cher internaute bu Ovision TV li leen leen indiloon tey ci wàllum dressage xaj ak ni ñuy yare xaj ak comportement yi xaj war am ak yi ngeen war a am yéen maîtres yi pour seen xaj mun a am nu mu comporté bu baax ci kër gi donc ñu leen di jox dig daje beneen yoon incha merci.